الرحمن الرحيم إن الحمد نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi xam ngeen ne ci weer wi nu nekk ci bisu tey bii lenn ci ay mbokk jullit ñi ngiy jóg di jéem a dundal ak a màggal juddu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam di jéem a wone ne ñoom bëgg nañ ko di jéem a wone ne ñoom allié nag ak moom di jéem a wone ne ñoom ànd nañ ak moom muy lu jaadu sax nag ànd ak moom far ak moom allié ak moom ak bëgg ko lu jaadu ci julli waaye mbokk yi wax ji mooy est-ce que ab jullit war naa toog rek at ba at benn yoon la ci màggal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax sunu waxtaanu tey ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala tomb bi nekk makaanatu nabiyil amin inda rabbil alamin place bi nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam occupé na ko ci boroomam bur yàlla tabaraka wa taala waaye tomb bi bala ñu koy waxtaane war nañu laaj ab laaj jullit ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci waxtaan wi ñu laaj suñu bopp laaj leen na ñun ndax bëgg nañ yonent bi mbokk yi ndax yéen bëgg ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ndax nun bëgg nañ yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yéen ñi ànd ak ñun ci waxtaan wi nañ xaaj tomb bi ñetti waxtaan ñetti tomb bi ci njëkk borom bi tabaraka wa taala màggal gi mu màggal soppeem bi muhammad taazimu rabbul aliyi li qadri alxabibi nabii sallallahu alayhi wa sallam màggal gi nga xam ne buur yàlla tabaraka wa taala màggal na ko soppeem bii muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaareel mooy mat gi nga xam ne matal na ko yàlla tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbind ak ci jikko ñetteel mooy man ak yow ndax xam nañu ndax xeet wi xam nañ dayo màggaay daraja bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am hal arfatil umma xadru nabiyiha ndax xeet wi xam nañu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg seen dayob yonent la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi buñ duggee ci tomb bu njëkk bi dinañ gis ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ku am daraja la ci yàlla ku màgg la ci borom bi tabaraka wa taala moom yàlla tabaraka wa taala ba mu ko bindee ba mu bindee mbindee fi dafa tànn ci biir mbindee fi yonent yi yàlla ba mu bindee mbindee fi ci biir mbindee fi da cee tànn yonent yi gënal ko ci ci biir yonent yi yàlla tànn ci ñaar fukki yonent ak juróom ñoo ñoo ko gënal ci yonent yi ci biir ñaar fukki yonent yooyu ak juróom yàlla tànn ci ñooñu ñuy wax ulul azmi ñooñu ñoo ko gënal ci yonent yépp ulul azmi mooy Nuux Ibrahim Muusa Isa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróom ñooñu ñooy ulul azmi mbokk yi juróom ñooñu yàlla tànn ci ñaar ñu gënal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaar yàlla ba mu tànnee yonent yooyu dafa delluwaat moom yàlla tabaraka wa taala mu daal ci tànn ñaari yonent ñooñu ñoo ko gënal ñëpp mooy yonent yooyu ñaar ñooñu muy ibrahim ibrahim ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla daa delluwaat tànn yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci diggante ñaar ñooñu muy muhammad ak ibrahim ba mu tànnee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom buur yàlla tabaraka wa taala Muhammad nekk koo xam ne yaatal na dënnam yaatal na dënnam yëkkati na aw turam teggil na ko coono yi ko tegu woon yàlla setal ko laabal ko ci lépp lu mu mën a doon yàlla tagg na xel mi setal ko ne ma dalla saahibukum wa ma gawa yàlla yaatal na dënnam laabal ko ne ma yantiqu anil hawa yàlla yaatal na ay mbiram lépp lépp lu mu mën a doon ci moom yàlla defal ko ko daal koy laabalal moom yàlla mu ne ginnaaw bom ko laabalee dënn bi rafetal ko yàlla defar xol bi ne maa kazabal fuaadu maa raa xol bi sax yàlla setal na ko yàlla yemul ci loolu bët yi yàlla tàgg na ko ne maa zaagal basar maa zaagal basaru wa maa taxaa ay bëtu Muhammad sax yàlla tàgg na ko yàlla tàgg xol bi yàlla yaatal dënn bi ne ko alam nashrah laka sadrak borom bi tabaraka wa taala ne yëkkati naa sax aw turam wa rafaanaa laka zikrak borom bi ne maa ko teggil coono yi ko teg woon wa wadaanaa anka wizrak bépp coono coono bépp jafe-jafe ku teg woon ci kaw yonent yàlla muhammad pour yàlla tabaraka wa taala ne teggil naa ko ko ixwaan yi yàlla tagg ko ci lewet gi mu lewet laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufu rahim sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaraka wa taala yemul ci loolu waaye wa zakka kullihi qaala subhaanahu wa taala wa innaka la ala xuluqin azim ginnaaw yàlla ba mu taggee benn benn ci ay cërëm benn benn cërëm yàlla yamatul rek tagg ko benn benn ci ay cërëm waaye jikko ji sax yàlla tagg nag moom léppam yàlla ne ko dëgg-dëgg lu baax li fa mu yem yow fa nga tàmbalee su fekkee ku baax dañ naan fii la yem jikkoom fii la yem yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci kaw lu baax loolu fala tàmbalee daal di jëm kaw doy na rek la waykat bi wax ne wa dammal ilahu ismu nabi ila ismihi id qaala fi lxamsati almuazzani ashhad wa saqa lahu min ismihi li yujallihi fa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam borom bi feeñal na yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ci waat gi mu waat ci dundam amul benn yonent amul benn nit amul benn mbindeef bu yonent yàlla muhammad bu yàlla tabaraka wa taala mësa waat ci dundam ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas radiallahu anhuma nee na yàlla tabaraka wa taala mustawaat musta teral musta bàkk musta kañ benn mbindeef ku dul yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne déglu leen yàlla waat ci dund yonent bi ne ko la umruka innahum la fi sakratihim yamahun kon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ku màgg la ci buur yàlla tabaraka wa taala yàlla giñ na ci dundam moom yonent yàlla muhammad waaye yàlla giñ na sax ci yonent gim ko yónni waxuma la mu giñ ci moom rek en tant que yonent waaye yonent gim ko yónni sax da cee giñ ne ko lan yaasiin wal quraanil hakiim innaka la min al mursalin allahu akbar yàlla giñ ci quraan ne muhammad mii di wax ak yéen maa ko yónni ci yéen lii mbokk yi ay aaya la yoo xam ne ci quraan la nekk ñu koy jàng guddi ak bëccëg waaye nag dégguñu maanaa yi ndax buñ ko déggoon danañ xam yonent yàlla Muhammad mooy kan ci ñun li mu ñu digal li mu ñuy wax guddi ak bëccëg danañ ci taxaw danañ ko sopp danañ ànd ak moom danañ far ak moom moom yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam du toog rek di ko jéem a bëggantu ci ay bis ci ay guddi ci ay waxtu déedéet kii léppam lu jullit war a teg ci kanamam la di ko xool ndax lu yàlla loolu la yàlla wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana borom bi nee na bu dee da ngeen a bëgg royukaay bu rafet ku ngeen di roy guddeeg bëccëg di ko toppandoo ci léppam muhammad a ngoog mu la yàlla teg sunu kanam ne kii moo ma doy ki ma doy war nee la na doy yéen waaye ñun bu fekkee ki nga xam ne moom moo doy yàlla ñun doyuñ ñun lan mooy nekk suñu mbir ixwatal iman yi il faut ñu xalaat il faut ñu jéem a góorgóorlu delluwaat ci texte yi ci téere yi di jéem jéemantu jéem a dund li fi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam indi woon ginnaaw ba yàlla giñee ci yonent gi mu ko yónni bal wa aqsama allahu bi duha yàlla giñ na ci yoor yoor biñ ci guddi su lëndëmee ne moom yàlla neenalul bàyyiwul yonentam wa duha wa leyli ida saja maa waddaaka rabbuka wa maa qola yàlla giñ ci yoor yoor giñ ci guddi ak lëndëmaayam ne yonent bii muy muhammad musuma koo sàggane musuma koo bax te duma ko musa bax moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind ko tànn ko préparé ko yónni ko ci ñun giñ ci yoor yoor ak guddi ne ko maa waddaaka rabbuka wa maa qola wala al axiratu xayrun laka min al ula ëllëg al axira moo gën ci lépp ëllëg alaxira lépp gën yàlla tabaraka wa taala ne dinaa la defal lépp yow muhammad alayhi salaatu wasalaam yaa ne ko dinaa la jox lépp ndax fekkuma la woon nga nekk jirim sa wayjur bu jigéen génn àdduna sa baay génn àdduna gisoo ko ma aar la defal la lépp ma fekk la ngay ku réer ku jaaxle man yàlla ma jubal ma fekk la ngay ku ñàkk ma defal la ba nga doylu lii ay mbir la yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko defal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi nañu ànd ñun ak yéen ñu xool settantal bu baax a baax soppe bii yow mi bëgg xoolal ki nga bëgg kan la muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki nga xam ne yàlla moo yëkkati darajaam kaweel ko ba mu kawee yàlla wax ak moom pour yàlla wan na ne muhammad ku màgg la yàlla wax na ak yonent yëpp daal di jaar ci seen tur ba mu des yonent yàlla muhammad boo jàngee Qur'an da ngay dégg yàlla mu ne wa qulnaa yaa aadamu eh yow aadama loolu am na ci Qur'an boo jàngee Qur'an da ngay dégg qiila yaa nuux eh yow nuux loolu am na ci Qur'an wa naadaynaahu an yaa ibrahim loolu am na ci Qur'an eh yow aadama eh yow nuux eh yow ibrahim eh yow Musa am na ci Qur'an yaa Musa inni ana rabbuk Isa sax am na ci Qur'an yàlla jaar ci dorom ne ko eh yow Isa id qaala allahu yaa Isa Daawuda naka noonu yàlla jaar na ci turam ne ko yaa Daawud inna ja'alnaaka xalifatan fil ard Zakariya yàlla jaar na ci turam ne ko yaa Zakariya eh yow Zakariya yaxya yàlla jaar na ci turam ne ko yaa yaxya ee yow yaxya luut yàlla jaar na ci turam ne ko yaa luut amma alxabib bu dee soppe bi la mustapha sallallahu alayhi wa sallam fa naada alayhi rabbuhu bi qawlihi yaa ayuha nabi allahu akbar ñii ñëpp yàlla bi mu leen di woo da leen ee yow diw muhammad nag dako ne ee yow sama yonent yaa ayuha nabi suratul ahzab yaa ayyuha nnabi ittaqi llah yaa ayyuha nnabi inna arsalna yaa ayyuha nnabi inna arsalnaaka saahidan allahu akbar wa mubashiran wa nazira muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa siraajan munira wa daa'iyan ila allah wa daa'iyan ila allah bi iznihi wa siraajan munira qaala subhaanahu yaa ayyuha arrasul yaa ayyuha arrasulu laa yaxzunuka alladina yusaari'uuna fi lkufr ee yow sama yonant bu mu la métti ñii di dem ci kéeféer bu mu la métti yàlla wax na ci qur'aan ba tey ne ko yaa ayyuha almuzammil ee yow ki sàngu yaa ayyuha almudassir ee yow mi muuru qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahir wa rujuza fahjur fala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir mbokk yi xoole yonte yàlla Muhammad ni ko yàlla màggalee yàlla musta jaar ci turam sànjaafu ko rek xotti tur bi direct ne ko yaa Muhammad amul ci Qur'an walal yaa ayyuha nabi yaa ayyuha rasul yaa ayyuha almuzammil yaa ayyuha almudassir allahu akbar ay tur xoolal même yàlla tabaraka wa taala bi muy jaar ci turam sax daf ko ormal ne wama muhammadun illa illa rasul allahu akbar wama muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurru llaha shay'a wa sayajzi llahu sakirin ala ne muhammad sama ndaw li muhammad nekkul ludul sama ndaw man yàlla maa ko yónni waaye mbokk yi da ngay dégg yàlla tabaraka wa taala tur bi mu gën a fonk moom yonant moom la ko yàlla di woowee abd nit ñi fekk nañ yonent yàlla muhammad toog ñu bugg ko jay comme tey ni ñuy jayee nit ñi tey nga dégg ab kilifa diine buñ jay ba ne yàlla la yow yaay yàlla yaay borom jaam ñi yaay diw nga dégg nit ñi ne est-ce que la hawla wala ay at ay weer ñu ne deena bàmmeelam a ngi nii kon kay xam ne du yàlla fi nekk rek mooy réer ak nar a dugg safara moo tax ñu tiim nit naan ko yow yàlla nga yàlla yàlla dina dee yàlla xayyun laa yamuut allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum boo koy borom bi tabaraka wa taala ëpp na rëy na trop màgg na ñu koy dendande nit kuy dee kuy faat mbokk yi yonent yàlla muhammad a ngi nii di ku yàlla ormal turam yàlla musu ko sàllawlu jaar ci saa yu koy wax da koy abréger ab mbir yaa ayyuhan nabi yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal mudassir subhaana allazi asra bi abdihi loolu moo tax nit ñi bañ bëggee jey yonent mu ne leen laa tatruni kama atarati nasara isa bnu maryam innama ana rasul fa qulu rasulullahi abdullahi wa rasuluh man ndaw laa wax leen ndaw lu yàlla yónni gis ngeen ci yàlla màggal gi màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam su yonent bi defoon sax loo xam ne waru ko def yàlla jàpp ne lii waru ko def yàlla bu koy critiquer di ko corriger danaan ko baal naa la ba pare doog ko wax lim def dañ xool aaya bi nekk sunu kanam ñun ñëpp borom bi tabaraka wa taala ci suratu tawba mu ne yonent bi afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkaadibin man yàlla baal naa la lu tax biñ ñëwee ne dañoo bëgg a ànd ak yow ci xare sax leer lu woo seen mbir ba pare doog leen jox ngant waaye nag loolu baal naa la allahu akbar lii mooy wane ne aaya yi ak xadis yi nekk suñu kanam te ñu wax ko wala aaya yi ñu wax suñu kanam tey ku mu doyul ci yonent bi yàlla da koo màggal yàlla da koo fonk yàlla da koo teg fu kenn yégul dara dootu la doye mbokk yi ku alquran doyul dara dootu la doy ku déggul aaya yi dootoo dégg ci tëx ngay dee te boo ci dee di nga dem safara mbokk yi yàlla nee na yonent bi baal naa la afallahu ank jéggal naa la man yàlla baal naa la ba pare yàlla wax ko yi mu def tabaraka wa taala kon lii doy na jullit borom bi tabaraka wa taala jagleel na ko ñaareel bu ñuy wan ne yonent bi ku màgg la ci yàlla yàlla jagleel na ko ne ko ëllëg di nga ramm yaay ramm jaam ñi moo tax borom bi ne ko ci qur'an wa min al leyli fa tahajjat bihi naafilatan laka asa an yabaasaka rabbuka maqaaman mahmud ëllëg yowmal qiyaam dinaa la teg place bu kawe place bu màgg moo tax yonent bi ne place boobu ku ma ñaanal ba ma jot ci ëllëg dinaa la ramm ci kanam yàlla moo tax soo déggee ñu nodd yonent bi ne ida samitumul muazzin yuazzin fa quulu misla ma yaquulu ngeen déggee waa ji di nodd wax leen lu muy wax summa sallu alayya après ngeen julli ci man fa innahu man salla alayya marratan salla allahu alayhi biha asharan képp ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon lii amul ci kenn amul kenn kuñ ko wax du sunuy baay du sunuy ndey du sunuy maam du sunuy sëriñ du sunuy mu waliyu du sunuy muqaddam du sunuy xutb du sunu kenn kenn dong lañ ne ku ko ñaanal ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon allahu akbar fa innahu man salla alayya fa innahu man salla alayya marratan salla allahu alayhi biha asharan kii kenn kooku dong la muy muhammad summa salu llaha li alwasila mu ne bu ngeen jullee ci man fare na ngeen ma ñaanal place bu mag boobu place bu rëy boobu bu sell boobu na ngeen ma ñaanal ma jot fa innaha manzila fil janna place la bu màgg ci aljanna képp ku ma ñaanal ba ma jot benn jaam dong moo ci jot wa arju an akuna ana huwa yaakaar naa ne man maay jaam boobu kon ñaanal leen ma ma nekk jaam boobu waaye ma jot képp ku ma ko ñaanal yàlla mu ne xalaltu lahu shafaati sak sak ram mu ëllëg pour nga dugg aljanna ci sama loxo la nekk man yonent bi maa ko garanti lii doy na beneen a ngi ni buy wan ne yonent bi ku màgg la ca yàlla yàlla jagleel na ko dexu kawsar mbokk yi nag xam ngeen lan mooy kawsar benn dex la ca biir aljanna nahrun fil janna weexaay bi moo gën a tar neige ci weexaay weexaay bi moo gën a tar neige waaye neexaay bi ci saf moo gën a saf lem moo gën a weex nees moo gën a saf suukar lem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xet gi dafa mel ne misk nee na limu kopp yi ñuy naane mu ngi toll ne biddiwi asamaan allahu akbar yonent bi nee na man maa fay taxaw di jox nit ñi ñuy naan maa fay taxaw di jox jaamu yàlla yi naan ku egsi ma tànk jox la nga naan man ak sama xeet borom bi tabaraka wa taala wax na ko ci suratul kawsar mu ne ko inna a'taynaaka alkawthar fasalil li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al abtar lii doy na nit koo xam ne yàlla jox na ko ci xéewal aljana loo xam ne jox ko kenn lu toll ne dex dex gu weex tall gu gën a weex nees gën a saf suukar lem li mu kopp yi naane moo gën a bëri biddéewi asamaan mu taxaw ku yegg si mu tànk jox la nga naan grade bi ku ko takk wallahi doy na doy na rek ci màggal lii rek doy na lii rek bu fekkoon ne sax benn aaya bi kese benn saar bi kese lañ wax ne mooy màggaayu yonent doy na bu doon ci ci àdduna la benn waaye taxaw am robinet boisson wala robinet soow nit ñi rek mu leen di jox di naan allahu akbar loolu dong doyoon na waaye muhammad la ko yàlla defal mbokk yi ba tey ñëw na ci xadis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam anas nettali ko xadis bi buxaari moo ko solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nettali dex gi ko yàlla jox xéewal gi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala defal na ko ko keroog ba mu demee laylatul isra wal mi'raj moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne may dox ba caag rek ma yem ci dex ma ni waa jibril lii lan la mu ne ma lii mooy dexu kawsara sa boroom tabaraka wa taala moo la ko jox yow soppe bi yow muhammad moom moo tax mu ne ndeysaan dex goo xam ne dafa weex tal gën a weex nees gën a saf suukar lem waaye xet gi dàq parfum mis yal nañ yàlla may ñu naan ci dex boobu mbokk yi doy na ba tey yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci xéewal gi ko yàlla defal nee na maa fay taxaw di jox nit ñi naan ñu ran nee na am na ñoo xam ne dañuy ñëw ma leen di dàq comme nit nu mu taxawee ci mbalka boo xam ne ay xaramam wala ay gëléem wala ay juróom ñoo ciy naan mu taxaw di dàq yeneen jur yi ci bokkul yonent nee na ci dex googu laay taxaw ku ci bokkul ku bokkul ci sama xeet boo ñëwee doo ci naan lu jar a bàyyi xel ngi nii mbokk yi yonent yàlla Muhammad taxaw ay nit ñëw ne ci xeetam laa lañu bokk mu leen di dàq neen leen bokk leen du ngeen fi naan naam inna lakum yawma idin siima saxaaba yi dañoo yuuxu keroog bi ñu déggee lii ne ko yonent bi nga taxaw di dàqe ci biir xeet wi am na ñu dul naan mu ne waaw ah waaw yonent sax yow keroog nit ñi nu ñu baree yonent yi nu ñu baree lu tolloog juróom-ñaar fukki xeet xeet wu nekk taxaw ànd ak seen yonent keroog yonent noo ñuy xàmmee mu ne wallahi dinaa leen xàmmee naam inna lakum yawma idin siima dinaa leen xàmmee bu baax alaama taxtalifuuna biha an kulli l umam dinaa leen xàmmee da ngeen di am ay xàmmekaay yoo xam ne du ngeen nuroo ak yeneen xeet yi saxaaba yi ne ko yonent noo ñuy xàmmee mu ne ndax yéen seen jeexitalu jàpp min asaril wudu jeexitalu jàpp yi ngeen doon jàpp seen kanam yi day leer loxo yi leer tànk yi leer fépp fu ndox mu njàpp mi doon egg day leer mañ mel ne projecteur allahu akbar nee na noonu laa leen di xàmmee sallallahu alayhi wa sallam ixwaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boolu bokk na ci màggaayam ba tey ci alquran ay aaye yàlla tabaraka wa taala ne fàttaliku leen keroog ba ma jëlee misaaq dig an jamil anbiyaai wal mursalin yàlla taxawal yonent yëpp ak ñi mu yónni ne leen damaa bëgg ngeen signé pacte signé contrat su ma yónnee Muhammad di ngeen ko dimbali di ngeen ko gëm di ngeen ko dimbali wa id axada allahu mithaqa annabiyin lama aataytukum min kitaabin wa xikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tu'minunna bihi allahu akbar la tu'minunna bihi di ngeen ko gëm waaye wala tansurannahu di ngeen ko dimbali li pacte bi contrat bi assurance bi yonent yàlla muhammad dong comme yàlla yónni yonent yëpp taxawloo leen ne leen signé leen ni muhammad bu ngeen ko fekkee ci àdduna di ngeen ko gëm di ngeen ko dimbali yàlla ne leen qaala aqrartum wa axastum ala dhalika isri yéen ñëpp ngeen d'accord signé jël contrat bi ne di ngeen ko def yàlla nga ko wax ci surat al imran aya 81 waaw dama ne su fekkee yonent yi sax ñoo xam màggaayu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba ñu tuddee yonent bi imaamul mursalin ñu wax leen ne keroog ca leelatul isra wal miraaj ba mu jaaree ca masjidul masjidul aqsa yàlla dekkil na yonent yëpp yonent yàlla muhammad jiite waleen wala ñu tuddee ko imaamul mursalin loolu doyul wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko tëkkalee tey ak nit ñi nga xam ne ñu ngi vingt et unième siècle alku nanu su jullit yi jógee tey di jël seeni sëriñ di jël seeni kilifa di jël seeni nangami nangam di leen tëkkaleeg yonent yàlla muhammad léeg-léeg sax nga dégg ku ne ñun suñu sëriñ li mu am kenn amu ko suñu sëriñ bu siiwee yonent bee tax bu siiwee yonent bee tax ku gis sëriñ siiw ma ne yonent bee tax mu siiw la mu am yonent bee coppati ci la gën a ndaw la mu am sànni ko ŋadd bu doon pañe la yonent bi ngi fa jël benn guro ŋadd ko ŋaddaat ŋaddaat daal di ko ci sànni ab xàppati muy wër di siitóoru dafa ne moo jël lépp réer weesuwul ab julit di jël sëriñam di fa tëkkaleeg yonent yàlla Muhammad léeg-léeg ñu ne la am nga sëriñ nga ni waaw am naa sëriñ kuy si sëriñ nga ni Muhammad ñu ne ah ah ku Muhammad nekkul sa sëriñ kuy sa sëriñ ku gëmul Muhammad tegoo ko ci kaw koy teg ci kaw mbokk yi loolu mooy tomb bu njëkk bi nga xam ne war nañoo xam dayo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca yàlla tabaraka wa taala ñaareelu tomb bi mooy war nañoo xam bu baax a baax a baax a baax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam matal gi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala matal na ko ci mbind ak ci jikko muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki mat ci mbind ak ci jikko yàllaa ko matal tagg ko defar ko man allahu alayhi bil jamaali suura yàlla matal rafetal taaral bind bi mu ko bind ko gi sopp yàlla muhammad alayhi salaatu salaam bi mu jógee màkka ñëw Médine ñu bari xamuñu ko ñi dégg rek yonent bi jógee na màkka ñëw na Médine am na waaju fa ñëw di woote na yonent benn arab ñëw te damay xool ci kan la waaye mu ne ba ma duggee ci mbooloo mi fekk ñëpp toog ñëpp sëgg mu ne may laaj ci ana gaa ana ana kan kan la kan moo ne fi yàllaa ko yónni mu ne am ñu sigg xool ma mu ne ci am na koo xam ne ba ma xoolee kanam gi fa lamma stabantu l wajha araftu anna al wajha laysa bi wajhi kasdab sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na ñoo xam ne dañoo sigg xool ma rek mu ne kenn ki kanam gi ne ma jàkk ma xam ne borom kanam gi du kanamu fenkat ma ne waa jaa ngi nii jarul may laajte ci kii kii la sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi wallahi xeet wi amul xamuñu ki ñu am yàlla bind na ko taaral kanam gi taaral jëmm ji yaram bi ak lépp xalaat bi xel mi gaaw a comprendre gi yàlla tagg xol bi ca askanam sax ci askanam tànneef xiyaarun min al xiyaar tànneef ci biir tànn te yàlla tànn yonent yàlla muhammad bi mu doon dajale riwaaya yi ci ñëw yëpp ci yàlla bind bi mu ko bind matal xelam ak xolam ak jikko ji di nga dégg mu ne kaana axsanu nnaasi wajhan allahu akbar moo gënoon tedd gën a rafet ci nit ñi kanam nee na iza sarra istanaa bu kontaanee da ngay gis kanam gi di leer di génn leer lumière moo tax yàlla bu muy wax da ko ne siraaj siraajam munira sallallahu alayhi wa sallam soo doon xool kanam gi ak li ci nekk ñu ne kaana nekkoon na moom yonent sallallahu alayhi wa sallam kastu lixya fattoon sikkim ñun këpp sikkim bi fat waaye ku yaatu dën diggante ñaari mbagg yi dafa yaatu woon nekkul woon ku njool ba mel ne filaawo gàttul woon ba mel ne guy sallallahu alayhi wa sallam bu daan wax fa mel ne lumière mooy génn ci gémmiñ gi nga gis sàkkara yàlla bi mel ne ku takk or nekk ci lëndëm or bi di feñ-feñi di génn sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko yàlla binde woon ci jëm yàlla tabaraka wa taala matal nag jikko ji su daan dox ci digg yoon wi lay jaar suñ ko woowee bu daan ges mu tourné bopp yaram bi yëpp mooy ges su daje woon ak nit di ko nuyu nit koy njëkk a bàyyi loxo bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi su fekkee ci wàllu jikko ji lañ ñëw yàlla tabaraka wa taala sànge na ko cuube na ko lewet cuube na ko xam-xam bu ànd ak yërmande ak dellu ci yàlla ak suufe suufelu ak dëddu àdduna waaye ku tedd bari kersa am jikko ju rafet jàmbaare nekk góor waaye fegu ku tabe am diine di jaamu yàlla yi mooy ay melokaanu jikko yu yàlla tabaraka wa taala def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu lewetee gën a lewet ñëpp mu ëpp ñëpp xam-xam mu ëpp ñëpp yërmande lu nit di am yërmande am yërmande Muhammad la ëpp yërmande ku dellu woon ci yàlla la guddeeg bëccëg li muy kawe kawe kawe di màgg ku suufe la woon tawaado wa zuhdu dafa dëdd woon àdduna lii lépp amul woon dara mbaam la daan war wala mu war gëléem wala mu war fas li ëpp mbaam la daan war léegi da ngay dégg ci Sénégal ñu naan diw du war mbaam ku sant Jóob wala ku sant Faal du war mbaam balaa saamu war naas Muhammad a gën a màgg ci ñëpp te musul war musul war naas kon naka la keneen di ware naas mbokk yi est ce que war mbaam torox tànge la yàlla Muhammad war na mbaam bañ naan diw du war mbaam loolu tax ñu war a bàyyi xel ci yi ñuy wax léeg-léeg ñuy tagg nit sax ba wax ko musiba fekk liñ la wax diw du nit di la tagg ba ne la doo nit te yàlla nee na wala qad karram naa bani aadam li ma bind yëpp doomu aadama ci gën ñu ne yow doo doomu aadama xam nga kooku dañ ko doon tàgg waaye yàq nañ keroog benn waaye nee na ma déglul wax ju bon ji ñuy wax ceeñeer gu génn ci lëndëm kenn du ko dégg di gëlëm mu ne ceeñeer ju génn ci lëndëm la est-ce que kooku ñu naan ceeñeer la ci lëndëm la génne kon ndeyam ak baayam ay lëndëm lañ xam nga ñii ñi koy wax sax ay dof lañ kooku fekk ndeyam ak baayam nekk ay jullit nekk ay sang ay kilifa jur ko ci diina yar ko ci diina jàngal ko ba mu màgg ba mu am daraja bi mu am ñu ne ceeñeer la gu génn ci lëndëm ñooñu ay lëndëm lañ wallahi xamuñu sax li ñuy wax ndax réer ndax ñàkk a jàng loolu dañ ko waroon bañ te lu ñu war a bañ la du wax ju jub waaye farfarloo moo tax kenn du ci wax dara ku ne xam na kilifa googu ñuy wax ay way juróom ñu baax lañu woon ay nitu diine lañu woon nitu quraan nitu sunna loolu tax mu am li mu am mbokk yi sant yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam borom bi tabaraka wa taala ci jikko yim ko may màng ko bokk na ci kersa ku bëri woon kersa la ku jàmbaare la woon sallallahu alayhi wa sallam góor dëgg la woon ku fegu la woon waaye ku tabe la woon ku amoon diine la ndax diine ji moom moo ñu ko doon leeralal moo ñu ko doon jàngalal waaye ku doon jaamu yàlla la guddi ak bëccëg jàngeen ci Qur'an yonent yàlla Muhammad julli na guddi ba tànk yi netti neew yi Aysa ne ko doo toog noppal mu ne afala akuna abdan shakura yow yàlla baal na la sa bakkaar yi nga am ak yi nga amul inna fatahnaa laka fathan mubina li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar terewul nga dégg ndeysaan mu ne afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk jaam bi sant yàlla mbokk yi doy na rek yàlla tabaraka wa taala tënk ci ni mu rafetale yonent bi ci suratul qalam yàlla ne ko tabaraka wa taala wa innaka la ala xuluqin azim lii rek doy na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ixwaani yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla wax na ci qur'an ndax suufe gi suufe suufe gi mu suufe suufelu ak melokaan gi ko yàlla melal ci qur'an yàlla mu ne ko yaa ayyuhan nabi inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhira surtu ahzab aya 45 yaa ne ko e yow sama yonent man yàlla maa la yónni man yàlla maa la yónni kon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam kan moo ko yónni ku dul yàlla tabaraka wa taala yàlla moo ko yónni yow sama jaam yow sama jaam nga abdi wa rasuli man yàlla maa la yónni nga nekk sama ndaw nekk sama yonent waaye ngay dégale képp ku la déglu dugg aljanna ngay xuppe di waare képp ku la bañ a topp képp ku la bañ a déglu dugg safara ëllëg kon lii ay mbir la ay melokaan la yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko jagleel suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne doy na rek ëllëg kenn du kenn du ko njëkk a dugg aljanna moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na moom mooy ñëw ëllëg fëgg buntu aljanna gardien bi malik ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne yow lañ ma wax balaa may ubbil kenn ma ubbil anas ibnu malik radiallahu anhu kenn la woon ci ndongo yonent bi ci ay àndandoom nee na liggéeyal naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog asara sinin fukki at musuma wax um musuma wax uf musuma wax lii lu tax nga def musuma wax lu tax nga defee ko nii musuma gis kanamam soppeeku musuma xool bët bu jaadu sallallahu alayhi wa sallam anas nee na moo gënoon rafet ci nit ñi mbind te moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loxoom mus ci teg xariir mus ci teg diibaaj nee na yonent bi loxoom moo gën a nooy soit ci ñaari façon yépp boobu ñu naan xariir ak bu ñu naan diibaaj lépp loxo yonent bi moo ko gën a nooy sallallahu alayhi wa sallam yaay Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo laaj ne ko ndax am na bis bu metti bu gën a tar ci yow bisu Uhud lan moo xewoon bisu Uhud mooy nit ñee ko jàpp dóor ko ba xuri óom yi damm ba ñi sallallahu alayhi wa sallam malaaka ñëw gis ngeen ca taif keroog ba mu demee ñu sànni koy xeer ba yaram bi nàcc malaaka ñëw ne ko yàllaa joxe ndigal keroog bi nga xamante ne dem na gaa yi sànni ko ay xeer daa di yàq yaram bi daa di koy gaañ moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan yàlla tabaraka wa taala borom bi daa di koy yónnee malaayika malaaka bi ne ko yàlla nee na boo joxee ndigal rek ñu daaneel montagne bi ci waa dëkk bi ñëpp dee lan la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wax allahuma ixfir li qawmi fa innahum la yalamun sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla yal na nga jéggal sama xeet yi ndax xamuñu rek yow yàlla ñii bàyyi leen fi bu ma seeni ndey weddee seeni baay amaana ñu jur ay doom yoo xam ne dinañ topp sama ginnaaw wala keroog ca fatxu màkka ba mu ubbee màkka ba pare dafa dajale ñi ko doon tooñ ak ñëpp jaami yàlla yëpp teg ci kanamam gaa yëpp daal di sukk ku nekk suuf mu ne leen maza tazunnuuna anni faa'ilun bikum lu ngeen yaakaar ne tey laa leen di def ñu ne mbokk mu baax doomu ku baax mu ne dem leen baal naa leen izhabu fa antum turoqa sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kooku mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kooku mooy xayru naas mooy gën gi mbindeef moom la yàlla tabaraka wa taala wax ci darajaam wax ci ay mbiram kooku moom moo doon ñaareelu tomb bi mbokk yi buñ ñëwee ci ñetteelu tomb mooy danañ fekk xeet wi tey nekk ku ko réere moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xeet wi nekk koo xam ne ñu sàggane ci topp guñ ko war a topp te moom kat yàlla tabaraka wa taala de ko ne nit ñi de buñ la toppul lépp luñ mën a def duma ko nangu fala wa rabbika laa yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduuna fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima waaw kon ñi naan tey dañoo bëgg yonent ñii di tiitaru ci ay fan ay bis lañuy bëgg yonent at bu nekk benn yoon lañ ko ciy bëgg benn guddi sànni quraan ji mu indi sànni sunnaam sànni aw dundinam lañu delluwaat ci quraan yàlla nee na giñ naa ci sama sama borom sa borom yow muhammad falaa déedéet wa rabbik giñ naa ci sama gaayu boroom laa yuminuun ñii di woote ne gëm nañ la gëmuñu la xataa yuhakkimuka fi ma shajara baynahum lu dul dañuy tànk seen bopp ñëw ci yow ngay atte seeni mbir ca la ca lënd ci yow lu koy atte summa laa yajiduna fi anfusihim xarajan mimma qadayt te soo leen attee ba pare li nga leen atte duñ ci am ay ñagg-ñagg xol da leen di neex fa yusallimu taslima yu jébbulu ak njébbulu ci la nga atte yow yonent yàlla Muhammad fala wa rabbika laa yuminuun duñu gëm loolu la yàlla tabaraka wa taala wax kon nag ñu xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi du ko ndaw ci ñun du koo xam ne su la neexee nga wax ci moom wala nga def wala su la déedéet ku ñuy topp la ku ñuy gëm la moom yonent yàlla Muhammad borom bi wax na ci Qur'an ba tey yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yadayi illahi wa rasulihi wattaqu llah inna allaha samiun alim e yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent nekk leen ci ginnaaw yàlla akub yonent ragal leen yàlla yàllaa ngi dégg mu ngi gis inna allaha yàlla samiun aji dégg la alimun ko xam gis nga aayol bam ne bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent lu mu ci teg mooy ragal leen yàlla te li garaaw ci aaya bi mooy bi ko yàlla di wax yaa ayyuha allazina amanu la wax yéen ñi gëm la wax kon mbokk yi jiitu yàllaa ko yonent kenn du ko def ibnu abbas ba muy firi aaya bi lu mu wax ay laa taqulu xilaafa alkitaabi wa sunna bu leen wax lu wuuteeg quraan ak sunna ndeke saa yow waxee lu wuuteeg quraan ak sunna mooy jiitu nga yàlla jiitu nga yonent Qurtubi mu ne laa tuqaddimu qawlan wala ficlan ala qawli illahi wa qawli wa ficli rasul sallallahu alayhi wa sallam bu leen jiitu waxu yàlla bu leen jiitu waxu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak jëfam Qurtubi noonu la firi aaya bi laa tuqaddimu qawlan wala ficlan ala qawli illah bu leen jiital waxu waxu nit ci waxu yàlla bu leen jiital waxu nit ci waxu yonent bu leen jiital jëfi nit ci jëfi mbindeef kon ixwaan yi foog ñuy bàyyi xel ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mbir yi nga xam ne moom la ko yàlla yónni moom la ko yàlla wax sinqiit yi mu ne dana dugg ci aaya bi aaya bi dana dugg ci aaya bi mbokk yi dugg goo xam ne képp ku ko def rek da ngay dugg ci aaya bi nee na kenn warta daganal lu yonent bi daganalul kenn warta wax lu yonent bi waxul kenn warta atte lu yonent bi attewul kenn warta araamal lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam araamal ci lu mu mun a nekk nag ci sharia loolu mooy bu leen jiitu yàlla akub yonent bu fekkee àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wi da ngay gis diggante rek ku ko màggal ak diggante ku ko teg ci suuf waaye xeet bi bu ñuy xool dëgg-dëgg da ngay gis ne ñu bàyyi àq yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lañ xamuñu ko dëgg dëgg dëgg dëgg lu dul ñu néew ci ñun ñu yàlla yërëm laa taxlul umma minhum fi ay zamanin wa fi ay makaan di nga gis ne xeet wi lu tuuti ci ñun ñooy woote wu bëgg yonent sallallahu alayhi wa sallam ñoo koy dund li mu fi indi woon ñoo koy dund lu néew tey ci mbokk yi ñoom ñoo allié ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ci guddi yii ci waxtu yii ci bis yi tey nga xam ne ni ñaa ngi takki ay oto ni ñaa ngi wari oto wari sareet wari mbaam dugg ci ay saxaar di daw ci ay dëkk di màggali ji guddi yonent nañu yëg ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ku ñuy màggal ci ay guddi du ku ñuy màggal ci ay bis du ku ñuy màggal ci ay heure waaye ku ñuy dund bés bu nekk ci place bu nekk ci waxtu wu nekk ci gox gu nekk ku ñuy dund liñ fi indi woon la moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla ñu yàlla may ñu mën a màng ñu mën a dund lii nga xam ne moom la ñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi loon lim ñu fi bàyyil ñu mën ko dund ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañ ci yàlla jàppale seen mbokk seen xarit oustaz Saïd lii moo doon jàppalante ak yéen di leen fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi yi ñu nekk asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu